képp kuy wax nga sàmm sa wax suturaal ko ormal ki ngay waxal donte bokk leen gis-gis bokk leen xalaat yow même soo koy contre nanga ko contre ci njekk ak ci teraanga te ñu bañ wax wax yu ñaaw yoo xam ni baaxul ndax saaga amul njariñ te sante amul njariñ xuloo amul njariñ te itam nag na ngeen bàyyi xel ni ñun njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañu nga xool ndax ci média yi gis nga ci kenn koo xam ni mi ngi wax lu ñaawtal kooku toujours rek soo waxee dafay wax ni yonent bi laa gëm kon ku gëm yonent bi da ngay wax wax bu yiw da ngay wax wax bu jekk da ngay wax wax bu set surtout nag ñenn ñi di attaque ay kilifa di leen wax ah bañuñu nag wax ji suñu yoon nekku ci mais nag suñu sañoon kuy wax jëm ci kilifa ak ku doon sa moroomu nit nga wax ak moom ci orma wax ak moom ci teggin wax ak moom ci teranga loolu daal ñu ngi koy ñaan képp koo xam ni njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga